asalaamaaleykum mbokki internet yi asalaamaaleykum wa Sénégal wa Sénégal atu ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ciow li nga xamante ni amoon na fële ca Brésil ba bakkan euh, daal ci faatu tey nag ñu ngi daje ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Ndiaye moom moo jiite euh, sénégalais yi nekk Brésil yëpp lu ñu naan euh, tungane du teew nag ñuy niitaan moom la ñu fiy dalal fii Sénégal actu président Cheikh Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm fii Sénégal actu point com. waaw Seydina ñoo ngi lay nuyu bu baax di ziar waa Sénégal actu yëpp di rafetlu seen liggéey waaw jërëjëf euh, Cheikh du euh, ñu tardé parce que dafa am loo xamante dafa xew ca Brésil muy diggante kii di ñaan euh, Bilal ak Asan Diouf ba bakkan daal di ciy rot mën nga ñëw ñëwal ci fee yi mbir mi nu mu demee. waaw donc comme ni ko ñëpp relaté damay indi démenti rek di wax inna lillahi wa inna rajiun. Hmm. di ko jaale ay mbokk waaye di démentir li ñuy li ñuy war di wax nan dañ ko rey daggate ko def ko ci saako. Hmm. loolu demeewul noonu. Hmm. donc bi mu bi mu bi mu bi mu toogee ba guddi Bilal. li nga xam ne moom la xarit day Assane yi wax. Hmm. daf ko woolu mu ñëw këram yóbbu vélo. Hmm. vers de vers de vers ay minutes et quelque mu ne ko demal yóbbu vélo bi ñëwaat donc bi muy ñëwaat normalement ça faisait deux heures trois heures du matin. Hmm. Bilal jotoon na tëkku Assane. dégg naa jotoon na wax ne Assane day wax ak sama jabar nekkul sax maanaam dafa jàppante wala jot nañu am rapport déedéet dafa ne dafa wax ak sama jabar. jabar ji mok Bilal dañu am problème parce que euh, jabar ji fan yi demander ni Bilal divorce ba hmm. nekatu ñom ñaar sax hmm. ay actuellement hmm. donc bi loolu xewé asan dem keur Bilal Bilal euh, assommé ko parce que fekk ñu ben benn ak pak assommé ko ah. jam ko ay jam jam yu bari ray ko ci bir negam bi ko rayé nak mom Bilal ci bir negam bi mi génné Bilal bi mi génné asan nak mi ngi ko génné benn genre pousse pouce ah. ñu ko carignou fi ci Brésil pousse mm. pousse nag bi ko bi ko Bilal di pousse am na ko génn am na koo xam ne nii mi ngi ci mbedd mi moo ko jàppale Bilal loolu policiers yi wan nañ ñu ko ci biir enquête bi. Mm. mais kooku nag xamagun kañ la kan la. Mm. après Bilal daf ko jël sànni ko ci def ko ci benn kees. lëmas ko sànni ko ci benn suufu pont. mais tàggatewu ko donc bi mu ko sànni suuf foofu nag ñuy fanaan si mbedd yi. ñu comme ñoom dañuy parfois ku sànni kees dañuy ñëw xool ba am na lu ñu si mën a jëriñoo. donc ñoom ñu ubbi kees gi xool muy nit ñu woo police donc ñi fanaan ci mbedd yi ñoo police. Mm-hmm. léegi nag bi police ñëwee nag ci la doog a nag gis corps bi mais inconnu la inconnu la mën a def parce que euh, Assane yor suñ benn document. Mm-hmm. bi nga xamee ne léegi frère am na ko 48 heures ba woo ma ne ma ne sama frère France wul ñaari fan ma ne ko non xam naa booy yi parfois rek dañuy dem fu mm-hmm. loolu jaaxal na ma parce que booy bi daal vraiment euh, daawul demee nii. ma a ko ah kon nañ def ay recherche par ci la ci la ci dañuy def ay recherche ba télé benn télé génnee benn image ne am na koo xam ne dañ koo gis des ko ñuy sud la maanaam kenn xamu ko ci suufu pont lañ ko foree mi ngi sol t bu jaune ak jacket bu ñuul. Hmm. donc bi loolu amee nag ci la mag gi ne ma ah Cheikh man sama xel ñaaw na ma ne ko lan la mu ne ma Assane t-shirt bu jaune la soloon ak ak bu ñuul. Hmm. ma ne kon nañ dem nañ dem IML e IML e mooy euh, ñiy def autopsie. Hmm. ñoom ñooy corps en général bi demee. egg eh, ñoo ñu ñu guddi na mais bu subaa ngeen ñëw hmm. bu ñu xëyee ñi man la tank ma yew moom dama duñu guddé won woon hmm. ay xaritam ak ak ak ak ak ak ak frère am dem na reconnaître gor bi ñu won ko xala wax wax ko ne asan la hmm. donc nak après bi nga xamé ne lu am na nak ci lañu ñuy bis ci suba gi nak ci lañu découvrir ne bilal parce que bilal ñi ko gis après fee yi dañu gis yëre tax direct te après bi police defee enquête ba dem kër bilal ba ubbi néeg ba fekk na fa direct ju bari fekk nañ fa aussi chaîne asan bu asan don tak te moom aussi wax na ne moom moo rey te dana reyaat keneen ak keneen ak keneen donc noonu la affaire yi demee. Hmm. waaw mais kan mooy Bilal ak ak ak lan moo ci rey nit. Bilal nag xaw ma ko bu baax parce que nekkul woon Sao Paulo. Bilal benn dëkk bu ñu naan euh, bu nekk ginnaaw Rio de Janeiro. Hmm. Espírito Santo fan nekkoon mook soxna am. Hmm. bu mu nekkee foofu nag ci dafa amee ay jafe-jafe ñëw fii mook na am ça fait même pas un mois. mais Bilal yàggul Sao Paulo dëkkul Sao Paulo. parce que affaire bi demee. Hmm. parce si vidéo yi maa ngi dégg euh, mu naan muy tëkku kenn ku ñaan tamit Sam. Sam moom tamit dafa mel ni. Euh, ñu ngi koy waajal. waaw kooku bu ngi koy tëggu mais kooku dem na police moom ba def na déclaration tëggu na Sam tëggu na beneen soxna bu nekk fii bu ñu naan Mata tëggu na aussi beneen euh, góor yàlla bu nekk ku ñu naan Amar ñoo ñëpp dem nañ police ba def nañ ñoom seen déclaration. Hmm. parce que fii bu ne la menacé da ngay dem def déclaration. Hmm. mais actuellement Bilal boobu police mi ngi koy wër mais nag gisaguñ ko jàppaguñ ko contrairement à ñuy wax. en tout cas loolu dafa baax aussi si ñu koy si si si ñuy leeral ci euh, coow yi nga xamante ne bu mel ni bu bu amee léegi euh, jamono ji ana kooru kooru Assane moom fu mu nekk. waaw kooru Assane tey bu ma xëyee nag bi ñu ginnaaw démb bi ñu demee police yenn fa ba ngoon ba lijjanti def déploiement beeg yooyu. Hmm. donc tey bu ñu xëyee ànd nañ ma grand frère am dem nañ si si si si si fi ñuy def autopsie. dem ci ci ci ci fi ñu registré corps ñu registré ko ñu jox ñu certificat de décès bi. Hmm. ñu dem récupérer corps bi corps bi instant bi récupéré nañ ko. jot nañ ci fa mu nekk ñun ñoo ko fa bàyyi ñu ngi ko bàyyi ci benn funéraire service funéraire boo xam ne mooy préparer le document nécessaire. Hmm. pour ñu mën ko yóbbu Sénégal jébbal ko ay mbokkam. Hmm. waaw koor boo xam ne aussi boobu faatu na boo des ñaari fan ñu koy ñu koy doog ñu koy doog a gis tamit du du du doy waar ak anam yi nga ko hmm. euh, ko foofu a xam nga fii ñu liggéey service xam ne ñoom ñoo koy utiliser. nga xam ne koor mën nañ ko denc ñoom ay ay weer wala at du def dara. loolu hmm. moom avec nouvelle technologie yi donc euh, jafeetul léegi lool lool lool. Hmm. ki nga xam ne mooy liggéey loolu moom. bu hmm. fekkee a dem rek automatiquement a euh. nag après bi ñu ko gisee. ba ñu gis ko ñun ba ñu gis tey maak frère am xam nañ ne kii yaram mi vraiment ay jam jam moo ci nekk mais bu a dem Sénégal la. ci xibaar aussi jot nañ ni euh, Assane jotoon na am soxna ak juróomi tuut tànk nan la soxnaam ak waa këram njabootam yëgee mbir mi. waaw ñoom niñ ko yëgee mooy mooy mooy mooy euh, internet bi rek euh, ñoo leen ko wax ak frère am bi nekk fii ginnaaw bi mu wootee. mais mm. internet bi nag ñoo gën a def ay répercussions. donc mm. am ko dugal vidéo di wax ne dañ ko rey dagg ko dugal kii saako xam nga yooyu kenn du ko wax parce que loolu bu amoon ñun ñu ko nëbbu. Mm. mais nag loolu dafa amul comme ñun ñoo fa dem léegi. gis Assane jàkkaarloo ak moom ñu jël koor bi jox ñu ko. ñu denc ko fu ñu ko war a denc di xaar jur bi nga xam ne ci lañ ko war a jébal ay mbokkam. vraiment euh, bu ñuy joxe information lañ joxe information yi nga xam ne moom moo reyal mais. Hmm. Euh, loolu baaxul daal si si si si nit vraiment. Hmm. léegi communauté sénégalaise bu nekk foofu nan lañ dundee mbir mi. communauté sénégalaise bu nekk fii moom ba man sax. Hmm. maanaam suñu suñu daayira bi sax groupe yi ñor man mënaguma see dugg parce que affaire bi daf ma daf ma choqué. de parce que c'est du jamais vu. c'est la première fois ma gis. fii mi sénégalais bu jël paaka ray morom sénégalais lolu mom moom na naa ne. Hmm. nit sax du ray morom nit mu xuma la nek sénégalais di ko morom sénégalais hmm. lolu mom vraiment nagn ko gisee mom ñu ñaaw la. Hmm. voilà jërëjëf euh, Cheikh Ndiaye yeen kaddu ngay ngay wa di nuyu ñëpp di ziar rek di wax euh, parents di leen gëna a dala seen xel di leen wax na ñong ci lepp lu ci war rek inshallah ah, ko def ba jëm ko ay xana ñom rek ñu ko ay ñaan. ay ñaan la xare ko àjjana yéemu ko te yéex a ñu barke Cheikh Khadim. du ma la du ma la amoon bàyyi la tamit nga dem te laajuma la autorité sénégalaise nekk parce que euh, Brésil aussi euh, consulat bi foofu la nekk ñoom autorité yi ñoom nan taxawee ci mbir ak ni ñu ko yëgee. waaw ñoom nag kenn déggagul seen réaction wax dëgg yàlla. Hmm. parce que ambassade bi ma nga à Brasilia les ngi xew à Sao Paulo. Hmm. mais amaguñ seen benn réaction wala seen benn correspond comme d'habitude rek. ba si rey nañ fi Ndiop yaay mi ngi may dégg mi ngi Italie. Massar Ba kii buñ ko reyee. Massar Ba. waaw ah, jeex na Massar Ba rey nañ ko en Argentine amul suite. Hmm. donc sénégal yi ñu rey ci àll bi moom en général seen i mbokk ñooy ñàkk rek. Hmm. parce que amuñu fi autorité yu ñu mën a taxawal plaider leen ne ñi décès des innocents wala ñii nangam pour gouvernement euh, Brésil mën nañ indemniser seen famille. Hmm. loolu loolu seen droit la. mais nag amuñu benn autorité boo xam ne mën na si jàpp ngir ñu topp loolu donc vraiment loolu moom ñu ngi koy déplorer. baax waaye ñun nag li ñuy war si diggante jullit ak morom ma mm. ah, saa su ne dañ koy def mooy jullit bu nekk ci jàmm nga ànd ak moom bu bu faatoo nga jébal ko borom moom loolu lañ suñu borom sant loolu ci la nekk yi ci seen yeneen détails yi moom vraiment ñun ça nous intéresse pas trop parce que c'est parfois c'est très politique. Mm. Ah. président Cheikh Ndiaye ñu ngi gërëm di ko sant yéen tamit mbokk ñaa ngi gërëm di sant di jox dig daje beneen yoon ci beneen leeral jërë ngeen